Siège du parti de Détiéfal, PRP, après avoir empêché les tenues des réunions du F24, après avoir barricadé et procédé à la dissolution administrative du parti PASTEF, aujourd'hui c'est le siège du parti PUR qui est barricadé, qui est empêché d'être utilisé par les citoyens sénégalais. Quel recul démocratique! Nous errons de siège en siège dans notre propre pays, comme la démocratie sous Macky qui erre. et nous dénonçons cela. C'est à nous, Sénégalais, de le dénoncer. Si nous ne pouvons même pas tenir des conférences de presse pour parler de la vie chère qui assaille aujourd'hui les Sénégalais. Vie chère qui est marquée notamment par un kilogramme d'oignon qui s'achète à 1500 voire 2000 dans certaines localités de notre pays. C'est pourquoi nous disons au président Macky Sall, Macky Sall, occupez-vous de vos oignons. Occupez-vous des oignons que les Sénégalais vous au lieu de maintenir en prison 1000 détenus politiques. Macky occupez-vous de vos oignons. Au lieu de travailler nuit et jour à empêcher la candidature du président Ousmane Sonko. Macky Sall, libérez le président Ousmane Sonko et ses 1000 co politiques qui aujourd'hui sont retenus arbitrairement dans les prisons sénégalaises. Macky Sall, occupez-vous de la vie des Sénégalais qui ont pour nom vie chère, qui ont pour nom santé chère, qui ont pour nom éducation chère, qui ont pour nom oppression des travailleurs. Vous avez vu comme nous, il n'y a guère longtemps à l'Assemblée nationale, en session extraordinaire et en procédure d'urgence, il a été question de réhabiliter Karim Wad et Khalifa Sall. Oui, nous sommes pour leur candidature. Parce que empêcher Khalifa Sall et Karim Wade d'être candidats, c'est antidémocratique, c'est liberticide, c'est une forfaiture. Mais pourquoi on n'organise pas des sessions extraordinaires et en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale sur le prix de l'oignon, sur la vie chère, sur la situation à dans nos universités, dans nos écoles, la situation dans nos hôpitaux, sur la recrudescence malgré les mesurettes du président Macky Sall, la recrudescence des accidents de circulation. Oui, président Macky occupez-vous de vos oignons. Occupez-vous des oignons que les Sénégalais vous ont confiés. Et arrêtez de, vous, de ne vous occuper que de politique politicienne. Arrêtez de ne vous occuper que de maintenir détenus politiques illégalement, arbitrairement en prison. Occupez-vous des oignons des Sénégalais plutôt que de faire dans la répression judiciaire Occupez-vous des oignons que les Sénégalais vous ont confiés plutôt que de faire la chasse aux militants de PASTEF, la chasse aux militants du FRAPP, la chasse aux militants de Nitu Dëgg Valeur. La lutte va continuer de nous allons continuer la lutte xeex bi dañ koy wëyal dañ koy wëyal ak suñu soble yi dañ koy wëyal ak jafe-jafe sénégalais yi dañ koy wëyal ak li nga xam ne moo métti sénégalais yi dañ koy wëyal ndaxte tas Pastef loolu wax bu yàqu la ndaxte Pastef dafa tas déjà ci xolu Sénégal yi tëj président Ousmane Sonko wax bu yàqu la ndaxte askan wi moo jàpp Ousmane Sonko tëj ko ci xolam donc wax bu yàqu la cinquième président fii ci Sénégal Ousmane Sonko la tudd incha allah tëj ay siège di ñu tere conférence de presse di ñu dongali fii ci réew mi fekk ne luubalkatu xaalisu askan wi sàcckatu xaalisu askan bi kenn tongaliwu leen ñu ñuy tongali ñun député représentant du peuple sénégalais du ñu dellu ginnaaw du ñu dellu ginnaaw te askanu Sénégal du jaam jamono jaam sax bu jaam sonnaan jox xeex ak buur rawatina jamono ji nga xam ne 2023 Sénégal république la Sénégal démocratie la donc lii moo ñu fi indi woon xam naa ne fii ak ay waxtu groupe parlementaire Yewwi Askan Wi bi nga xam ne moo ëmb député Yewwi Askan bi dina leen wax lan moo nar a nekk taxawaayam ak fan la defee conférence de presse waaye aujourd'hui c'est un jour de deuil pour la démocratie sénégalaise un énième jour de deuil pour la démocratie sénégalaise mais nous ne pouvons pas ne pas exprimer toute notre solidarité au peuple sénégalais fatigué ces deux oignons à 600 francs ñaari soble 600 francs fu ñu jëm fu ñu jëm kan moo ñuy wàllu kenn du ñu wàllu ku dul suñu bopp ñun askanu senegal kenn du ñu wàllu lii dal askanu Sénégal nag soble bu cher bi dund bu cher bi faju bu cher bi jàng bu cher bi loolu moo tax Ousmane Sonko di xeex loolu moo tax Pastef di xeex loolu la ñu bëgg a wëyal ci réew mi te ñun duñ ko fi nangu tey duñ ko fi nangu ëllëg Pastef vivra Pastef vaincra parce que Pastef c'est un état d'esprit Ousmane Sonko vivra Ousmane Sonko vaincra. Libérez les mille détenus politiques, libérez le chef de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko. Je vous remercie.